asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ku nekk sa tur sa sant jiital nuyoo ci journaliste yi nuyu président honorable député maire Ablaye Baldé nuyu adhérent adhérente yi nekk fii yépp nuyu naa ñi ci table bi ñépp suñu njiit yi bàyyiwuma kenn comme ni ngeen ko xamee rek ñun jigéenu UCS bu commune Ziguinchor ñun ñoo waxtaan suñu biir xool saytu gis ne wax dafa jot ndaxte umpu leen ne fan yi yëngu-yëngu mi ngi am mais yëngu-yëngu boobu ñun jigéenu UCS yi yëngaluñu dafa fekk ni yëngu-yëngu boobu yépp li ko waral gis ngeen ne léegi dinañ samp assemblée ñu ne deetuwaay ñu ngi wajjal ramaniment nit ñi defé né bu ñu ñëwé tib suñu biir dañuy am ndam waaye fi ñëpp xam nañu kan moy kan ñun jigéenu ICS yi ñi né Ablaye Balde moy numéro 1 fi de gulumbu a jogé dem national romba dem diaspora loolu lañu gëm ragal nak da fay xagn wërseuk ñu xoolaat suñu biir ñu waxtaan ñu ne balaa ñuy def lenn nañu dem dugg ci quartier yi ñii mer ñu xëcc leen dooleel UCS ñi ne deetawaay nañu dem ñu créer cellules yi lu am solo la parce que fu toll nii il faut ku ci nekk nga taxaw sa quartier di xaar ne dinañ la ñëw fekk foofu jéem la padd wax loo xam ne amul Jema a buddi sa base tas ko bu len ko nangu den len slogan bi ngeen ne maa lànk tey maa suba bu lolou wessé ñi ngi ñaan suñu président honorable docteur Abdoulaye Baldé bu ñu paré ci massification jema a wala taxawal taat ay UCB ñu dem ci renouvellement pour xam ku nek loo mënee ñaari at mi ngi ni tur la rek mais pour ñu woote réunion problème la kon bu amee ñu dem waruñoo mën a yëngal moom président am Abdoulaye balde fu mu nekkoon démb ma nga fa ba tey moo nekk ci xolu Ziguinchor waaye waaye loo gis dafa am lu tax ne ñu jéem a dem bënn taab bi ñun ñëpp ak jeunesse bi ñu dooroon door xacceen parce que tey ku gis mobilisation bi qualité moo fi nekk demuñu for nii fu nekk de dañu yëkkati téléphone yegle, def komunike, nin nyo wuyus nyo, te fayou nyo ay nit teme, djoklen mil fran, mil fran, pou nin nyo fè sal sal bi. Fini yi dan el enak mwoy, nyun jige nou UCS, nyingi lanse an apel, ti prezident, di itou re ou mi, son ekselans maki sal. 2019, batay prezident de la republik, oum pou lone, ablay balde, gore na, djap pale nala, respecté na kàddoom kenn du ko laam-laamee mais lu tax ba léegi ñun UCS mënuñu gis suñu bopp ci biir Benno Bokk Yaakaar mu doon lu ñu jaaxal torop ñu bëgg nag nga delloo ko cëram jox ko ko ba mu mot sëg su boobaa dinañu am lu ñu neex torop parce que mérité na ko yelloo na ko mu doon lu am solo fu ñuy tëjee nag son excellence président Macky Sall ginnaaw bi ñu Santa sante bu baax suñu président parce que slogan bi ñu am moy Balde ci xol jotuma ko wax ci français waye ñi ngi ñun jigéenu UCS xamal ne duggu bi Ablaye Balde Dugu, Benno Bokk yaakar deugul si bu mu xalaat ne wor dina jóge si ñun mais ñaan nag lu important lu ma fàtte wax ngir yàlla ak yónnante bi kuñ fi joxate ndombal tànk nanga gore parce que tey président Ablaye Balde bu ñu nee ñun UCS dañ ko gëm bu nee damay topp Macky Sall ne ñu ànd ci ngor ci njubte bañ a jiital alalu àdduna ñu liggéey liggéey bu rafet ñu ànd ak liggéey ak moom liggéey bu set ba keroog bu mandat Macky Sall di dayer di jeex parce que dëkk la si ñun donc nañ ko woné sur le terrain lu soosey di wax wato sita dam leen di ñaan na ñëpp jokk wacc wàcc à la base parce que bu ñu suñu président ñun suñu bopp dinañ ko dolal kon nak ma ngi leen di gërëm di leen sante di leen né jërëjëf. gërëm di leen sante di wax ni kontaan nañu ci teewaay gi ngeen fi teew tey dañu woote woon suñu parti pour waxtaan suñu biir ndax ku ne xam na ni xëj na am na ay lënt-lënt yu ndaw yu jógal coow fan yii ñu génn te coow loolu dafay baax bu jógee ñu won nit ñi ni politique moo ni demee politique moo am ay réalité am politique moo am ay raison nit mën na fi nekk tey ëllëg mu jàpp ni feneen moo ko gënal waaye li gën a am solo mooy li nga xamante ni moo ñu tënk ñun ñëpp muy parti union centriste du Sénégal te le président Abdoulaye balde jiite ko li gënoon am solo si ñun tey mooy won nit ñi ne donte lii xew xew na waaye union centriste du Sénégal fa mu nekkoon démb moo nga fa tey te xaj na sa tey la gën a taxaw tey la gën a gën a am doole nit ñi nag ku ci nekk mën nga jël décision bu la neex waaye ñun ñi nga xamante ni boobu ba léegi ñu ngi gëm le projet politique UCS boobu ba léegi ñu ngi tegee mu dëgër bàyyiwuñu tàyyiwuñu xaddiwuñu tey la ñu gën a taxaw pour ànd ak président Abdoulaye Baldé ba keroog mu ñuy xalaat loolu nag dafay tax ñu invité suñu président parti muy Abdoulaye balde pour mu. yeesalaat bànqaas yi nga xamante ni ñooy doxal parti bi ca biir Chor commencé ko ca coordination communale bi xaj na sax bu temps bi xawee gàtt mun nag jafe pour ñu ne renouvellement tout de suite mais moom am na pouvoir de taxi may nañ ko buñ tolloo ci situation mu jël ay circulaire réaménager ay structure donc li ñu koy ñaax mooy mu def un réaménagement d'accord mais au-delà de ce réaménagement na mu déclencher le processus pour que nous renouveler intégralement bépp structure bi nga xamante ni yaa ngi taxawoo UCS ci biir Ziguinchor muy structure des jeunes muy structure des femmes muy structure des cadres structures yi yëpp nañ leen renouveler parce que loolu moo ñuy permettre ñu capter ñu bees nga xamante ni ñu ngi ñëw ci parti bi te faaw ñu am seen place faw ñu jox leen seen taxawaay faw ñu nangu leen ni am nañu gëdd faaw ñu nga xam ñu dugal leen ci biir mbir mi pour que ñu mun a wéwal liggéey bi waaye bu leelu weesoo ñoo ngi invité suñu président Abdoulaye Baldé également mu convoqué le conseil national centriste ni mu gëna a ndax ñu fàttali ni conseil national centriste mo statué en novembre 2018 jox Abdoulaye balde feu ne ko mën nañoo dugg ci biir Benno Bokk Yaakaar donc tay quatre ans après da fay jaadu mu convoqué wat bobu conseil national ñu tok xayma décision bi nga xamanteni jël nañ ko ñenti at ci ginnaaw lan mo ci suñu njëriñ lan moo ci nekk gàllankoor lan mooy ci war a nekk li nga xamante ni moom lañ ci mën a xaar ëllëg ndax nag bu ñuy waxante dëgg rek ñun bi ñu duggee benn Bokk Yaakaar ba léegi dafa dugal suñu parti ci benn situation inconfortable ndax situation boobu mooy lan mooy ñun xam nit ñi dañuy jàpp ni nekkuñu nii ci pouvoir ni ci opposition ndax nekk ci pouvoir mooy lan nekk ci pouvoir mooy être associé maanaam dañ lay boole ci liy doxal réew mi kenn ci yéen mënumaa ne seede na fenn fu mu jëlee benn nitu UCS ñu boole ko ci liy doxal réew mi léegi ñun lan mooy suñu wàll ci bilan Macky Sall ëllëg est-ce que dañ ci war a nekk gunge rek te duñ ci bokk ba pare bu bilan waree xëy ëllëg ñu war a bokk si ñu koy assumer donc il faut que le conseil national mu réunir ñu évaluer sans complaisance buñ ci xool xaritoo buñ ci xool diw yaa neex nañu xool décision bu ñu jël ban jeexital la ñu amal et que ñu dégager waat ay orientation yu claire parce que dafa am ay enjeux yu nekk ci kanam te buñ ciy jëm dañu war a am taxawaay bu leer ndax askan bi mu ngi ñuy bàyyi xel askan bi mu ngi ñuy déglu bu ñuy wax ak ñoom dañ leen war a wax lu yenu maanaa jërë ngeen jëf maa ngi leen di gërëm di leen sant